هب قد جاني حارق قلبي في عمري دوما لشيقي باء صايني سكران القمر الهوى وعادل الإب فيهم شفاو إنني مورق ببر حبيبي فرق القلب البراء والسماء benn bis mu ngi séddale itam màng ba benn waaye ne bëreet na jóg na ko yow mi yàlla yónni màndul ni ngay séddalee mànduwut mu ne ko suma mànduwut kan moo màndu su fekkee man mànduwuma kan moo màndu kon màndu mooy mbir mi nga xam ne mooy fondement bi màndu ci kër gi borom kër gi ak soxna si màndu am kóllëre sàmm seen diggante kere bañ leen di boole ñi nekk ay xale wala bu ñu ay xale sax waaye ñu ngi leen di boole ñi war a ànd dem bu dëkk ñi fàttaliku kóllëre yooya kilifa yañ doon waxtaane kolere doom yi leen yàlla jox alal ji joxante dimbalante kàddu gu rafet kóllëre googu danga koy topp di ko topp di ko topp ba bu ëllëgee doom jooju su génnee dem ca school ba dem ca office ba dem fu mu mën a dem yóbbuwaale kóllëre googu waaye kóllëre bu amatut kóllëre bu amatut lan moo am li am daal fi ne mooy ku mën a nax sa moroom nax ko ki gën a eewu ci adduna mooy kii naxaate waaye bu ñu demoon ci njàngalem yonent yàlla Muhammad ki gën a ki gën a dof ci adduna mooy kii naxaate ñun nag kii naxaate ci kàddu di naxaate ci jëf ba am lum dundee ba affaire baax kooku moo eewu waaw lii nag moo ñu yóbbee nit ñi yépp daw bàyyi fi kóllëre dem ci firi kóllëre bo duggé ci office yi nga dem ci barab yi nit ñi da dajé yépp da ngay fekk nit ñi nit ñi naxanté di alal demal ci marché yi fi nga xamné fa la nit ñi di gën di dajé di fa alal dem fa nga xol da nga gis naxanté bi lekkante bi manam ki gëna a man marché moy ki nga xamné bu xeyé day naxanté lu mu mën a am ci jaami yàlla yi ci seen loxo nax leen lekk ko rek loola mooy alal ji dagan ci moom seen yoon nekkut ci te loolu buñ dellu si woon ci jàngaleeb kii ñi bëgg a màggal si kooku mooy dof moom dof la koy tuddee ndax loraange googu ngay jël ci alali nit ñi benn mu wuyu si la léegi balaa ngay faatu wala bu ëllëgee mu métti ci yow loolu nag dafay continuer ci office yi ni mu nekkee ci marché bi lay demee ci office yi noonu lay demee fu nekk ñàkk kóllëre gi yow bi nga ñëwee ñi war laa jox office bi kóllëre gi mooy dama la óolu waaw président daf la óolu wala ki jiite office bi daf la óolu wala ki jiite euh, manager bi jiite place bi daf la óolu mu oola nga ñëw mu ne la yow laa teg fii kóllëre gi door na lii laa bëgg nga defal mag lii waxtu sàngam laa bëgg nga xëy waxtu sàngam laa bëgg nga wàcc ana ban waxtu sàngam ngay xëy yow ban waxtu nga xëy ban waxtu nga wàcc bu nit ñi ñëwee bëgg a liggéey si ñëw yaa leen war a liggéeyal yaa ngi ca biir ne da ngay ndékke maanaam boo xëyee balaa ngaa egg si nine la soo ñëwee ne damay ndékke balaa ngay pare eleven la nit ñaa ngi toog di la xaar sa yoon nekku ci parce que sa sago rek ngay demee lu tax kóllëre rek nga sànni waaw ah. demal si lopitaan yi ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon a faj docteur dafay laabiir xol ba leer ngir ki feebar tëdd yoonam nekkut ci docteur baag noos yaag ñëpp seetal rek léeg-léeg docteur yi sax ñooy xaw a tane ndax ñoom xëy na bëriwuñ waaye noos yi demal ci noos yi nga seet kii nga xam ne moom lañ dénk kóllëre na ko malaad yi new doole lañ bëgg nga leen di jàppale mu ci ñoom di dal ci seen kaw di leen ñàkkee teg teggiin di leen sikkutu di leen siixlu di leen lu nekk rek loolu rek ngay gis yow te war la na tànn loppitaan da nga na tànn beneen liggéey parce que lopitaan ku fa dem kay da gis lu nekk da gis ku naqari deret ku ne parce que nit ñaare bu feebaree dafay naqari deret yow nag feebaruloo yow yaa ñëw war koo dimbale bu weer dee ñi fay la colère googu nga sànni ko ci àll ba di dal ci kaw malade yi di leen ñàkkee teggiin di leen bursit mel ni ku amee ay gune taalibe yow yaay kan seetlu la xamula sa bopp colère ga réer na la colère hmm? ga réer na la colère doomu aadama googu moo dem ba démocratie bi ngay dégg nii ci dëkk bi coow li jàppal bàyyi léegi mooy lan mooy démocratie bi lu la neex rek defal lu la neex waxal waaw loolu la neex defal lu la neex waxal ah démocratie ci lañ nekk bul faale kenn ku nekk di tampon sa morom lu ko yàq kóllëre ga kóllëre démb ga mooy danga réere sa bopp réeree gi nga réeree sa bopp nga réeree sa borom réeree gi nga réeree sa borom ci nga réeree sa morom ku xamul sa bopp xamula sa morom sa bopp sa borom doo xam sa morom waaw ah, ku xamul sa borom xamula sa bopp nag léegi nooy xamee sa morom ku xamut sa morom nag doo xam ki nga war a respect ak ku nga war respect su ko defee ñàkk kóllëre googa mooy tax yërmande dal di jeex kenn du yërëm kenn wax lu dowul dëgg am tuumaalante am yàqalante am lépp nga yàqoo ca cosaan la ca faawu ndesoon ba moo tax benn baat benn jikko muy amaana ci lañ def suñ ñaari programme yépp danañ ko continuer danañ ko continuer ak yow ci jikkoom yi di ko compter benn par benn yoo xam ne daan na ko jëflante ak jaami yàlla yi waaw kóllëre googu nga xam ne yàlla nga ko tënkoon ci def ñu ngi nekk xalifaam ci kaw suuf waaw ñi sàmm dénkaane yi ak mbóol yi ak sekkere yi nga xam ne yàlla def na ko ci doom aadama yi waaw waaye ana kóllëre googu kon nak jam fa ken bugut ko comme ken bugut ko nak bul ko nango def ken bay bala ngay wax jam fa sa digganteeg nit setal sa diggante yalla mba jam fa wala yalla ye bo jam ye yalla pour nga jam fa keneen du nek problème ci yow bo jam ye prophète bi kat bu mag bi sab yonent bi ngene mom nga gem hmm soko jam faayee pour nga pour nga ñaka jam fa dana jefe kon nag nañ di delluwaat toujours ci démb ndax ñi mën a xam ëllëg ndax ñi mën a xam tey nañ di delluwaat ci démb ndax ñi mën a xam fañ jëm xam fiñ toll loolu moo ñuy dimbale ba tey danañ continuer yow ci jikko yonent yàlla muhammad yi sallallahu alayhi wa alihi laamin won nañu ne suñ tayam jeex na ñu yeewal fii ba beneen friday incha allah yàlla nañ fekkee yàlla nañ tal وصلى الله وسلم على محمد وآله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين أه، جرجف الشيخ باي مختار توري مبوكي كنا دجن لغا حمنا رك مام لنيو الشيخ أه، باي اندل تايجي سوغو ديفه ني اندك يين تي تي واتو وي تي 446 1193 su ko defee ngeen jaaraloo rek xam naa ne li ñu desi si waxtu nag bëriwul ñu jël suñu fausse koola bi ci line bi asalaamaaleykum عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أتى بسم الله. مصطفى. آه محمد ثاني. نعم فال. لنا سيارة إلى المكي ومالك ما. جي جي فال. دي باي مختار كوني أنا ليالا نيودي فنم. أمين يا رب. أمين يا رب. li mu moo ko xam yal na koko ko yàlla defal ci barke amiin Fall amiin amiin yaa rabbi amiin waaw dama am moom dama am laaj bismillah waaw may laajte jullit tey biñ demee fi mu nekk ñàkk yàlla bi bàyyi wax na ci tuuti hmm. waaw fujal bi bari na li ma lim doon wax noonu rek jul jum jun junju na loolu julli ji bari na yu bari am na waaye ndax déggu nañ ci ñaaka déggu ci toppa ci diina naka la borom di amee arjana naka la borom di naka la ko yàlla di nangoo loolu laay laajte salaamaaleykum ñàkk a dëggu ok aleykum salaam ñàkk a dëggu ci diine waaw diine moom faw ndesoon bi mooy nga dëggu ci rek hmm. waaw yàlla dafa wax ci alquran mu ne na ngeen ragal yàlla te dem ànd ak ñi dëggu hmm. maanaam ànd ak ñi dëggu maanaam diina wax la ci làmmiñ ak fas ci xol maanaam dëggal ci xol hmm. ak jëfee ci cër maanaam ñett yi mënuñoo tàqale ko hmm. maanaam làmmiñ moom foog mu wax ah, waaw léegi nag soo waxee ba ñëpp dégg te mooy wax yàlla yàlla lu ñu wax rek nga ne yàlla làmmiñ waa ngi koy waxantoo mm-hmm. julli laa nangam lañ ma tuddee yàlla làmmiñ waa ngi ko waxantoo léegi nag dañuy xaar xol bi mm-hmm. xol bi daf ko war a dëggal parce mm-hmm. que dëggal ko xol bi su ko dëggalee dafa war a feeñ ci cër yi dafa war a feeñ ci cër yi moo tax julli sax bi ko yàlla tuddee da nga dégg mu naan la julli dafay tax nit ki bàyyi lu bon lu tax sëgg ak siggi nu muy taxee nga bàyyi lu bon sa gëg siggi bu àggul ci xol du tax nga bàyyi lu bon kon li tax sa gëg siggi nekk benn médicament per boo xam ne wala garab boo xam ne man naa tax nga bàyyi lu bon dafay fekk booba bi nga taxawee nga xam ci loo taxaw ah, bi nga sëggee nga xam sëgg mooy lan mm-hmm. bi nga siggee nga xam lan mooy siggi bi nga sujjootee nga xam lan mooy sujjoot mm-hmm. bi nga siggee toog ba sëlmal nga xam lan loolu mooy lan xam googu nga koy xam mm-hmm. loolu mooy tax mu man laa bàyyiloo lu bon waaw mooy li ma doon waxtaanee léegi waaye li eggut ci xol. ndax dañ koy wax ci làmmiñ nii rek. loolu su boobaa. Euh, jëf la yoo xam ne borom gëmut ko dëggalut ko te loolu am na nu ko islaam tuddee naafeq la koy tuddee mm-hmm. naafeq nag moom baaxut maanaam la ñuy wax naan léegoo léeg nga julli ñu taxañaat julli nga sànni la ko waaw nga kon 446 1193 446 1193 xam naa nag waxtu jeex na sax xam naa dañ lay bàyyi rek su ko defee ñu jël xaaral ñu jël kii rek ñëw tàggatoo salaamaaleykum waaleykum warahmatullah. wa ay ci bismillah naam tam na ngeen def ñu ngi sant yàlla bu baax a baax waaw siyaar na ngeen bu baax man la mot ci bakaw mot bakaw waaw jërëjëf wallaay dan naa gëf na na trop macha allah jërëjëf samb waaye couleur daal dëgg dëgg bàyyi ah couleur jar na sàmm jar na sàmm de jar na sàmm de fam jógee ko bu ni wàcc kuñ ko jox nga ko ah bi mu ba ci xew wii ñu seetlu ko fa war nañ ko sàmm bu baax a baax a baax. wallaahi. waaye ba yàlla ñu yàlla fayal. amiin yaa rabbi. yàlla nga am jàmm. amin ya rahman ya defal la ko defal ko sa njaboot. amin amin ci si siyaay imaam ratis nag. imaam ratis maa ak njaboot ji yëpp ak képp koo xam ne moo la gis rek maa ngi ci siyaar ñun ñëpp. te la ñana jàmm ju wér a wér a wér ma toog rek maa ngi kontaan ci yow. jërëjëf Samb. jërëjëf yàlla na yàlla fayal ñu la. amiin yaa Lamine Thiam itam jërëjëf waay jërëjëf Samb jërëjëf yàlla def la jàmm may la may la fan ak wér gu yaram amiin amiin ci baral ko dafa bépp seytaan ak musiba jërëjëf Samb baax na jërëjëf waaw baax na jërëjëf baax na baax jërëjëf xam naa ne ajaram moom xam naa ne su ma ko waxut sax nit ñi xam naa ne ñuy déglu dinañ ma ne laajal Cheikh Baye Mokhtar Touré lu tax mu tànn ceeb ceebu jën parce que mbaxal mu ngi fi ay maafe yooyu mu ngi fi mu tëb tànn ceebu jën <laughs> beneen bi mooy olof dafay wax mu ne kóllëre gannaaw lay féete ah loolu naka la ko naka la ko lislaam indee moom kóllëre gannaaw lay féete bu féetee gannaaw mbaa duñ ko fàtte wala ah, waaw li li léebu olof la rek léebu olof la waaye kóllëre hmm. kanam ak gannaaw yëpp la waaw kóllëre hmm. ñaari ñaari yëpp la kanam la gannaaw la kon maanaam olof dafa mel ni dafa jël li passé rek waaw moom dafa la bëgg a wax rek olof dafa lu mu fa bëgg a wax rek hmm. mooy maa yow bu ñu amantee kóllëre ndeysaan bu ñu demee ba kenn gisatul ci sa morom. Mhm. na sàmm kóllëre. kay moo tax ñu ne kóllëre gannaaw lay féete waaye bu ñu demee dëgg-dëgg ci cosaani kóllëre. Mhm. kóllëre kanam la gannaaw la. Mhm. ndeyjoor la càmmooñ la kaw la suuf la. macha allah kóllëre moo moo moo amal jaam bi. waaw kóllëre mooy am ak jaam bi. moo tax ñu gis gis jaam bi ñu bëgg mu dellu ci yàlla ndax moom kóolare la moom jaam ci boppam. ok ok la ko yàlla dafa tibb ci suuf. jàpp ci kóolare. Hmm? jël ci ngelaw. Hmm. jàpp ci kóllëre. jël ci safara. Hmm. jël ci ndox. boole wante taxawal. moo tax nga gis buy bu bu ngelaw delloo ca ngelaw. suuf eh, bu bu bu safara delloo ca safara rek. ndox delloo ci ndox rek. <laughs> ñu ngi jël suuf yàlla mi moom day matal kóllëre mu jël suuf delloo ci suuf ndax diw jébbal nañ ko boromam. Ah, <laughs> ndax yàpp weeg deret ji kóllëre la woon. allahu akbar moo tax kóllëre boo ko toppee dafa xóot lool. Ah, jërëjëf kon Cheikh Baye. waaye ceeb bi doo ci wax aca ñu bàyyi la rek boobu boobu du ma ji toon ma ji toon ma ji toon ak ajaramu kamara mooy toon <laughs> su ko defee sant ñëpp gërëm ñëpp uh-huh. rawatina jàngale ci lislaam di siyaara uh, kilifa yi yëpp rawatina suñ boos Mr Peter di ko ñaanal yàlla uh, ak njabootam di ñaanal yàlla suñ xarit beneen uh, Mr Edward uh-huh. dafay topp programme bi ak ñoom alaaji driver bi alaaji ak ñoom doom bàyyi ñoom ñëpp uh-huh. di leen siyaara waaye di siyaara itam Modou Samb mi jógee fi léegi. wax dëgg mhm, fonk na fonk na programme bi. lool sax lool lool sax ak boroom tool bi. Mhm. ñoom El Baara Taal. tamit suñ xarit bu baax a ngi noonu. El mhm. Hadj Baara Taal macha allah. El Hadj Antoumane Gueye. Eh, ñu ngi koy ziyaara bu baax. ak waa kër ga yëpp suñu yaay aji Adama Fati. di ko ñaanal yàlla ak njaboot ga yëpp. ak bàyyi alaaji alaaji Modou Ka. mag yi mos waaw mag yi mosoon Ka. waaw mu ngoog alaaji la Ka man nag dama ko xaw a gëj a dégg. waaw dafa tukki woon fan yii rek ñu ngi wax. waroon naa am numéro ma ma ziyaara ko. waaw ndax ndax daa kuraan topp programme bi. dëgg la ba léegi sax mu ne mu ngi koy topp. dafa tukki woon rek waaye ñëw na dinaa la jox nambam mbam incha allah. ñu koy ziyaar bu baax a baax a baax. Mm-hmm. waaw ñoom euh, aji euh, euh, Kombo Ndiaye. Mm-hmm. boobu suñu yaay la mu ngi ak euh, suñ Papa Dia Mr Abdoulaye Touré ak Mokhtar ñoom ñëpp di leen ziyaara waa jàngale ci lislaam bàyyiwuñ kenn mhm. waa masjidul rahim bi luj na bi ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaara bu ma dooree tudd rek du ma mën a tudd kii mhm. bàyyi kële waaye ñoom ñëpp xam nañ seen bopp euh, ñi ngi jàppalante ñun ci liggéey bi ñu ngi leen di ziyaar bu baax di leen seet euh, Assane Gueye tey yàlla def na mënta ñëw Euh, dafa fanaan fële mandowaar mm-hmm. mu xaw a léet ak ndox mu bëri mm-hmm. mi waaye ñu ngi koy ziyaara mm-hmm. moom njabootam yët yóbbu waye ndox mi ñi ñaan yalla lamin yalla mm. def ko ndox mu sedd amin way euh, newet bu baax amin yaa barke amin amin newet bu baax ta barke amin yaa euh, ñu ngi koy ñu ngi koy ñaan borom bi ba pare ñi ngi ciy dégg itam ay lorange yu mel ni ci mm-hmm. dënn yi yalla ñi ci yalla musal amin ya rab ci njabot gi amin amin hubu shayqi tijani harq qalbi bi amri dawman li shayqi ba'u sayni سكران القبر غواه عادل الإب في شفاه إنني مورق ببر حبيبي فرق القلب البرى والسماء قتل النفس عشق